lii rafet na de macha allah jëlal ma ma xale yi xoolal ma xale yi xoolal ma ah, de xale yee ngi fo xale yee ngi fo lay lay la la nañ ko lay wax ni barki Serigne Touba Mbacke est-ce que xam nga ni wës est-ce xam nga ni wës mi ngi leen di sant leen non bi daa mën a bëree wës lii kat barki Serigne Touba Mbacke tey kaw léegi mais ziar nañ leen. waa kër Weuz jàmbaar leen top mais booy ziar nañ la ziar nañ la. waaw delloo ziar baax ci loo nekk. waaw ñu ngi si jàmm nii rek bilaay wóor na yàlla. mais combat bi laa wax neex na. barki nooree nii est-ce que xam nga ni Weuz mi ngeen di bége. non instant bi Weuz daa war a bëreeg booy yi. ay booy Fall million ne booy bokk si ay booy Pokola. bilaay parce que Serigne Touba Mbacke. day ñëw parce que Gakou Dóom. mbër la parce na ko ñoo waral làmb ñu na ay wut rek ñu tëb xëy na raam rek. yaa ma gën a xam bilaay walaay. bëri na lu rëy. mooy loolu. kuul alhamdulilah. rek. barke Seydina Mouhamed. Oh, awul leneen moom la ñuy topp ñoo ko fa am bu xaar ak ñor na barke sëñ Bamba kese. ah noonu la demee ziar na leen ziar na maa ngi fi ay jàmm sant rek. naka bis mooy maa ngi fi rek. mbégte bi yéen koy kër. ah wóor jàmbaar rek sant rek. waaw wóor rek. noonu la demee Fall. kese képp rek. on est là pour. outside gang. Thank you. waaw ah, ba ñun ñëpp gërëmal ma leen. waaw man man kay waaw waaw ci la newoon léegi de. ci la nekkoon nii. waaw kii moom am na yéen yéen ñaar yéen a bokk góob góob yi sëñ Babacar mais. yéen bokkul tur ba pare moom sëñ Babacar. mais ziar nañ leen. waa Kër Waas jàmbaar leen. booy ziar nan la ziar nan la. waaw doo la si jàmm rek bilaay wër na yàlla. mais combat laa wax neex na. barki nooree nii di bége. non instant bi daa war a bëreeg ay booy faal bi loolu booy bokk ay booy pokola. bilaay parce que Serigne Touba Mbacke. day ñëw parce que Gakou Deo la parce que Bébé Diène. man ah waaw waaw waaw. Eh, eh, eh, Youssou jëlal lii Youssou jëlal li xale yi def lii doy na waar waay lii rafet na de macha allah jëlal ma lii xoolal ma xale yi xoolal ma xale yi xoolal ma xale yi ah xale yi ñu ngi def spectacle de xale yee ngi fo xale yee ngi fo lay lay la laa ndeysaan mbokk yaraax bu ngeen gisee lii xam ne yaram daw na ndeysaan tey xool yi sedd na ndeysaan bu ngeen gisee lii xam ne xool sedd na ndeysaan dam dafa neex ndeysaan dem na bëre yàlla may ko ndam mu ñëwaat xool seddati na mi ngi sant waaye rax di leen gërëm bu ngeen gisee lii xam ni bu ngeen gisee lii xam ne xool sedd na su ngeen li te xam ne xool sedd na tey tey tey tey yaraax yëpp génn nañ te yaraax yëpp mobilisé nañ yaraax yëpp mobilisé nañ yaraax yëpp génn nañ tey tey yaram daw na barke Serigne Bamba yaram daw na te yaram daw na yaram daw na te yaram daw na barke Serigne Ndiouba ba gisee xam ne xol sedd na yaraax gépp génn yaraax gépp mobilisé nañ yaraax gépp génn nañ yaraax gépp génn nañ Weuz Diambar kese Weuz Diambar kese la ñuy topp ndeysaan ndeysaan ndeysaan xol sedd na bëri na yàlla may ko ndam lu sedd guyu guyu guyu guyu guyu yàlla may na ko ndam ñibbisi na waaye rax teertu nañ ko teertu nañ ko fekk donc salaamaaleykum waa Capa bi donc ñu ñu ngi ñëw euh, ñu leen seetaan yëpp du ñëw waa waa Yaraax vraiment ñëpp waa Yaraax te nag bon dañu fi ñëw rek pour fêter la victoire ak Weuz Diambar bu nga xamante ne tey daf ñu sigil daf ñu sagal ndaxte vraiment rusloowuñu yóbbu na drapeau Yaraax à l'international génnee ko si dëkk bi et vraiment ñëw yàlla mee ko ndam. combat yu gën a mag yi topp vraiment ñuy gën ñu ñëpp mbëru Yaraax yëpp ku si génn. tey nga nek référence am donc vraiment félicitations. lo gisee mbër mi ak lo koy wax. ah mbër mom vraiment tey mom combat bi moom. man man dama xawone stressé motax sax sànni wax bu baax baax mais gis na ni vraiment indalé na forme indalé na yar aussi indalé na aussi tamit euh, conscience parce que soy soy bëri aussi lolou c'est important do ñow rek di di bërti bërti da ngay da ngay xalaat parce que gis nañu combat bi mom moko ko hein mom moom moo action mom mo moom moo et puis moom moo dan aussi vraiment malgré que blessure la am mais gëm na ni gaynde su su blessé woo sax si lay ëppee doole te tey loolu la wone vraiment macha allah kontaan nañ si moom trop. lu wees nañ mobiliser ñu koy jox nag seen seen mag bi Capa TV di ko mooy waa Yaraax yëpp ñu ngeen leen di sant di gërëm di leen jaajëfal ba beneen yoon incha allah ci yeneen combat ak